ben mbolo bu tuddu regroupement des cadres de la poste bi nga xamné cadre poste yep nyoka ci biir ñoko ñoko défar teunk defar ko ci ci ñenti poñ ak ci li ñuy wax ay recommandations li jëm ci poñ yi bi ci moy walu entreprise bi nan lañ koy gérer euh, liñ ci niñ koy niñ koy ni ñu gérer entreprise bi méngootul ak ak jamono buñ ko buñ koy tënk daanaka jumtuwaay yi ñuy yi ñuy utiliser pour gérer entreprise bi euh, fii jamono toll euh, jumtuwaay yooyu léegi mënatuñu dox pour nga am résultat yoo xam ne moom ngay wut ci wàllu li ñuy wax ressources humaines mooy ñi fay liggéey li ñu constaté jàpp ñun ñëpp mooy fi mu nekk personnel bi ci ci wàllu lim dafa ëpp par rapport ak soxla bi entreprise bi am pour def liggéeyam ak fi mu war a jëm donc liñ ci jàpp mooy ak nu mu mënte demee foog personnel boobu ñu réorganiser ko ñu optimiser de sorte que ñu mën a am li nga xam ne mooy euh, résultat yi nga xam ne moom la ñuy xaar ci entreprise boo xam ne non seulement daf fi nekkal askan bi mais dafa war a performant en même temps ci walu liguey bi numuy doxé euh, poste dafa jankonté ak li wax problème de trésorerie c'est-à-dire xaalis bi ñu war jox clients yi donc côté bobu lolu moy dafa am conséquence moy danaka entreprise bi doxatul ni mu wara a parce que bu xaalis amul entreprise bi danaka day day taxaw euh, poñ bi mujjé moy li jëm ci walu poste finance bi nga xamné biñ ko créé ak légui defna fukki at ak juróom-ñaar te mbébét bi moo nekkoon ñu def ko banque léegi nag pour loolu mën mën a antu li ñu jàpp mooy il faut nguur gi jàpp ci ci wàllu politique ak ci wàllu xaalis banque centrale mi nga xam ne moom aussi moom mooy joxe agrément yi mu mu mën a gunge euh, projet boobu pour mu mën a sotti ci ci diir bu gàtt donc li ñu jëlee ci diagnostic boobu mais dañu jàpp recommandation yi ëpp solo bari na mais yi ci ëpp solo bi si jiitu mooy fi mu nekk poste dafa soxla eh, immédiatement am xaalis bo xamne mom lay dugal ci réseau mu meuna a fonctionner mu meuna a aussi soulager clientèle bi eh, agent yi ci limbi ñu xol nan lañ koy organiser pour ñen ñu ñu defal le départ volontaire ñen ñu ñu defal le reconversion am aussi ay activités yi nga xam ne modernisation dafa laaj ñu externaliser ko c'est-à-dire ñu koy def ak ñeneen fekk dañ koy génnee ci biir entreprise bi euh, texte yi nga xam ne moo ŋànk entreprise bi ci wàllu nan lañ koy téewee loolu moom dañoo bëgg ñu changer ko changement bu profond ndaxte méngootul ak ak jamono euh, autorité de régulation bi muy agence de régulation des postes et télécommunica euh, des télécommunications et des postes boobu aussi mu jàpp gën a defaraat texte pour que poste mi nga xam ne concurrent yi dañ koy atta euh, de manière déloyale loolu mën a loolu mën a poste aussi comme entreprise historique la dafa am li ñuy wax patrimoine immobilier suuf su bari terrain yu bari yoo xam ne mën na ko valoriser pour que en réalité chiffre d'affaires am mën a yokk dernier point bi mooy wàllu poste finance mi nga xam ne nit ñi dañ ci am yaakaar yu bari ñu mën ko def banque euh, ou bien en tout ñu transformer ko pour mu gën a mën a njëriñ askan bi